Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Euh, daleen a jàmm baax waa seen njàngum turc tey leen tey dañ jox ay baat wala ay bind li nga xam mooy làkk turki bu ko defee dañuy dimbale ñi nga xam dañuy doo commencé. ok are ready? let's begin. xaddi baasu la yërëm bi ci njëkk mooy mer merhaba merhaba mooy salwi bu ñu xoolee ci arab lu jóge marhaban ok merhaba merhaba wala am na ñuy wax meraba ñoo baa ci lang mbedd langaasu mbedd mi comme ni nga xame baa meraba lañuy wax meraba meraba mais bii dañuy wax merhaba mer merhaba marhaba man nga nuyoo ci ci journée bépp mën nga ko wax marhaba li topp mooy gunaayden gunaayden gunaayden booy nuyoo ci suba loolu ngay wax naka suba gi bonjour wala sabaaxul xayr ok li topp mooy i gunlaar i i gunlaar mooy bonne journée ok bu dee ci ngoon gi dëgg ci digg bëccëg booy nuyoo loolu ngay wax wala ñu yendu jàmm ba tey i gunlaar ngay wax gun moom mooy yow mu quoi wala jour i gunlaar bi ci topp mooy i ak shamlaar i ak shamlaar boo ñëwee ci ngoon gi loolu ngay wax ak sham mooy ngoon masa donc i ak shamlaar mooy bonsoir bi ci topp mooy i gajalaar i i gajalaar boo ñëwee ci guddi wala boo tàggatoo ci guddi comme nga mas xarit ngay tàggatoo ci guddi nga ne ko bëggoon a ñu fanaan jàmm wala guddi jàmm i gajalaar nga wax i gajalaar géeje moom mooy euh, nuit moom mooy guddi ok yi géejalaar mooy bonne nuit layla saida bi jàpp mooy görëchër gërëchër gërëchër moom mooy au day na gisee ci kanam ok jaaraat ci merhaba merhaba gunaydın gunaydın iyi günler iyi günler iyi akşamlar iyi akşamlar iyi geceler iyi geceler görüşürüz Görüşürüz. Okay. Cevap may nasılsın? Nasılsın? Valla nasılsınız? Nasılsın? Wala nasılsın? Nasılsın bu dee sa morom nga sa morom ngay waxal mu ne ko na nga def o baa nasılsën nga mais bu fekkee da ngay wax ak mbooloo wala bu fekkee nga ngay wax mag pour pour respect bi pour cër bi o baa nasılsınız nga koy wax ok ñoom ñaari ñëpp na nga def wala na ngeen def lay firi nasılsın nasılsınız comme ni amee ci arabe wala ci français ok Comment allez-vous? Wala kayf halukum? Nasılsın? Nasılsınız? Okay? iyiyim iyiyim mooy maa ngi ci jàmm iyiyim moom doomu mooy bon wala bien ok iyiyim maa ngi ci jàmm ok yaa sen yaa sen mooy yow tamit nag wala yaa siis yaa sen wala yaa siis mooy et wala et ok yow tamit nag ok bir dakika lutfan bir biir daqiqa lutfan biir moom mooy benn daqiqa bu leen xool ne ci arab mi ngi jóge ci naan daqiqa lutfan ba tey ci arab la jóge mais fii moment la fi firi ok biir daqiqa lutfan mooy un moment s'il vous plaît lahza min comme nii nga ne ko may ma tuuti rek ok biir daqiqa lutfan biir daqiqa lutfan ok bi ci mooy evet evet moom mooy waaw contraire moom mooy hayr hayr evet hayr ok belki bel ki moom mën naa am peut-être ok bi ci mooy tamaam tamaam mooy d'accord xasanan baax na bi ci mooy xoos gaal dinis xoos xoos gaal dinis comme nit nga am euh, gan mu ñëw sa kër boo ko wax dala jaamu ci turki mën nga wax xoos gaal dinis xoos gaal wala xoos gaal din bu dee kenn la wala wala sa morom mën nga ko xoos gaal dinis mais bu dee mbooloo ba tey wala koo xam ne koy jox cër niis nga Hoşgal Deniz. Okay, ñu jaay raati. Nasılsın? Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsınız? İyiyim. İyiyim. Ya sen? Ya siz? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Belki. Belki. Tamam. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş ok bi jàpp mooy benn mutloyum benn benn mutloyum bu leen xool benn mooy man ok ana ba leen xoolee ne bi jaal jàngoon nañ les pronoms personnels naka la ngay waxee ok mutlo moom mooy euh, kontaan ok mutlo léegi benn mutloyum mooy dama kontaan ok benn mutloyum benn mutloyum bi topp mooy te shekkur ederim te shekkur ederim mooy jërëjëf bu la nit nee waxee chekku dem ci turki mën nga tontu suwaar nga ne ko bir shay deyil wala rija e dërëm biir bir shay deyil rija e amul solo ñoo ko bokk ok bi ca mooy benim adım benim adım benim adım boo wax ni nga tudd loolu nga wax da nga benim adım après wax nga tudd masalan benim adım faatu ok benim adım faatu ok bi ca Ben 22 yaşındayım. Ben 22 yaşındayım mooy maa ngi am ñaar fukki at ak ñaar xam naa leçon yi ñëw incha allah dina leen jàngal naka la ñuy naka la ñuy compter ci nga xam mooy làkku turki ok bi mooy maa ngi am 22 ans ñaar fukki at ak ñaar da nga naan ben 22 yaşındayım ben 22 yaşındayım ok bi ca mooy uzgunum uz uzgunum mooy maa ngi jégalu mooy je suis désolé ana asif wala ana asifa ok bu tey mooy uzur dilerim uzur uzur dilerim ba tey moom excusez moi wala afwan wala maxzira ok bu leen gën arab xam ne uzur la jógee quoi baat bi ñoo uzur wala maxzira uzur uzur dilerim ok bi mooy turkcee booy ni ndax dégg nga turki wala mooy su war nga wax turkcee mooy aloxa turkiye mooy turk ma nga ne turkçe biliyor musunuz ndax dégg nga turk wala ndax danga nga làkk turk wala nga ne ko ingilizce mooy anglais luxa ingilizce ingilizce biliyor musunuz ndax dégg nga anglais wala ndax danga nga làkk anglais pitap mooy i yol juluglaar i yol juluglaar waxoon nañ leen ci ci leçon yi njëkk ya bu ñu jàng alphabet bi ne woon leen see ci anglais see ci turki ñu ngi ko liir a jee see ñu ngi koy liir a jee moo tax fi da i yool julug laar i yool moom mooy yoonu jàmm boo voyage ok bi mooy benn evliyim benn evliyim benn evliyim mooy man dama marié ok benn evliyim mooy maanaam rësëy wala je suis marié ok Ève moom moom mooy kër quoi Ève moom mooy maison manzil mais benn evliyim mooy dama marié ok picc mooy benn evil de mooy contraire bi ok benn négation bi la quoi benn evil de yil de moom mooy négation bi moo tax danga naan benn evil de mooy man marié wu ma ok lastu mutazawijan wala mutazawijatan ok benn evli de benn evli de yilim ok njaarati Türkçe wala İngilizce biliyor musunuz i yolculuklar i yolculuklar ben evliyim ben evliyim benn evli değilim benn evli değilim xam naa ko loolu moo doon leçon bi euh, ñu leen jox dig daje bëne incha allah waaye balaa boobu di leen wax kenn abonné ci seen chaîne bi bu ko defee du ngeen raté benn leçon ok guys gërës gërës